salaamaaleykum euh, sama gars yi télé ci ngi si hôtel bi ak imam Alioune Badara Ndao ak visite mi am quoi sa doom asalaamaaleykum amin amin fay mbooloo jurit macha allah dëgg la dëgg la dëgg la jërëjëf <laughs> sant yàlla amiin amiin affaire yi moom la dëgg la dëgg la dëgg la. man 92 laa la xam 92 laa jël say kese ñëw Casamance di ko def. taw lañ ci waa groupement. sax ñu ngi leen di jooy kase kase boobu mu ngi suñu kër. kase boobu nga kër. kon man dañu la arrêté def. parce que xalaat ngeen ko def ci ñun xam naa ne dinañ ngeen arrangé moom gis naa yàlla yàlla fay nañu ko. amiin amiin amiin man daal ba la ñu fii ak ñu defal ñaanu xaalis. waaw mooy dëgg mooy dëgg. weesu na ko. c'est ça c'est sûr. sant yàlla. loolu tey laa

nit ñi dañ naan collectif bi ñu ngi mais fàttali ko was euh, ni

coisa. sànqal yi loolu leen moo xew dinañ xaw rus tey maa ngi koy nettali benn waay bu wax rek bi ñu procureur proposé wàllu na voilà lii laa doon wax waaye dafa def ñu koy tëj ma ne ko man daal procureur moo procureur waaw bañ dee mu ne moom sara bi na ko dëgg li mu wax mooy dëgg waaye barki démb bi ñuy joxee verdict fu muy xool mais day ron ni ñi jaar ne moon la rek dëgg rek ñu yàlla jàppale jàppale ñu ñëpp jërëjëf si jërëjëf islam ñu jégal ñu rek ne ma ne ko ñu rek ne coono yi bëri na waaye ñu ñëpp ñu ci yonent yi ñëw ci ñëw ci saxaaba yi ñëw ci ñëpp man nattu boobu aussi moo amaatoon si sa kaw rek te loolu ngëneel la du ku ne boo ko woon yàlla du la ko teg antan gi ko antan moo tax yàlla teg loo ko wallahi boo ko la ko teg nag sant yàlla loolu ak ngëneel la man jàppe naa ne ngëneel la nga laqatu woon alors euh, loolu loolu ngëneel la parce que si sa jaamu yàlla ci sa ñaan sa lépp alors deful la àdduna manam li dama jàpp ne defaru la ci àllante parce que objectif julli mooy dee dugg aljanna waaw li rek sunu objectif du aduna am am du man man du len war nak bula yalla yàlla natou ci li ngay gor gor di ci liggéey sam ci bir loolu la nattu bi ñëwee wa loolu sant yàlla parce que ay liggéey am natou ci lenen ñu nga leneen nak li ci si yalla subhanahu wa taala yalla la ci natou loolu xam la waaw loolu ci ginaaw الحمد لله رب العالمين دال نغا خيل نيت ني سا ني نيوي تريبينال الوغ اند نغا كورتمان اك دال اك يار بي لو دغ سول ما دغ فا جانغال دا فا خيو فوفو مس ام دا تا باهي ني اي القران يفا جيب حديث يفا جيب مس ام لو سوا دوكو فا دا واخ مون لا مي مون لا مون سا بول بول غنيم يالا لا يالا ديكل ريك فوفو لو ني ba sant yàlla subhanahu wa daal mooy ñaanal ñu ñaanal jullit ñi ah man day dama sama sama sama xol maa koy wax léegi Abdou Karim bi ma ne ko ndax nga ak na ngeen fexe jàppalante ndax seen léegi léegi rek foogu moom dina gise waaye gis nga ko mu ko gis nga ko noonu bi waaye dañ leen ak yàlla mi ngeen doon jëf am na fay te mën na ko dara te lot la ba nekkal mu nekk kon jéego yi ngeen di soog moom rek moo moo mën ne jéego yu sottil sotti yal na sottil jëpp ci seen jéego amiin sottilug suñ borom yal na ko yàlla def ci seen jéego yii man de sama xel dafa dal bu baax léegi ci liggéey bi ngeen def dal na lool lool lool lool maa koy wax léegi ci ñoom Abdou Abdou Karim mi ne ko su ma dee woon ca kaso ba sama damay dee ak ak fierté kontaante ngir lan terroriser gi ñu leen terroriser ci biti man foogoon naa ne kenn du ñu may wax <laughs> man loolu laa foogoon dama doon problème bi sérieux na sérieux goo xam ne société bi est danañ ko ñëw dékku mais gis ñoo xam ne xëy xëy jël ko amee ma ne alhamdulilah islam daal la borom waxoon ne لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من قتلهم حتى يأتي أمر الله nekk du fi jóg mukk dam ci yéen nag damul suñ borom la lu mu jaarale ci yéen waaye nag suñ borom du jaarale ay mbiram yu toll nii ci ku bëgg dafa benn xadis bi wax ne inna allah subhanahu wa taala yuti dunia من يحب ومن لا يحب وإنما يعطي الدين والإيمان من يحب ولا يعطي ولا يعطي الدين إلا من أحب من أجاب خم خم أدنى مي، تقول تقول دي، مهم نوجد شباب، noonam lenn rek la am loo xam ne du ko jox mukk noonam mooy diina ngëm yàlla kon bu ko bu ko suñu borom subhanahu ci ay jëmm yu mel ni yéen ñu leen leen di ñeete di leen ndax ñun bu fekkoon ci biti natt bi tegee ci kenn ci yéen est-ce que dañu am audace bi ngeen du ma ko tuddee audace dama ngëm ngeen am bu mën ko ndax li du japp ngëm la ngëm ca bokkaat suñ ko def na ci njàng ndaw ñi nga xamne yeen mu yeen ñi jox yanu ko suñ ko do bu a wax ne ah kilifa yaa ndax kenn gi gën gën responsabilité ñeme ko buñ ko ko tuddé mom la buñ ko ko tuddé wut yalla téna ko mu doon yéen ci may may wax ne man est ci biti naa bokk ci yéen ñi nga xam ne yéen yéen yéen dañ leen di félicité di ñu ak borom bi tabaraka wa taala lii li ci yàlla gàcceele nekk ak ñi ci yëti yàlla ci bidaaya di aw datil majdi wala zëtil islam suñ borom mën na ko yomb na teeku yàlla. amiin amiin seen jéego yi yàlla yàlla sotti. amiin amiin yàlla jullit ñëw fekk si leen ci jéego. te foog nañ foog nañ bu baax. incha allah ah ñun de wax naa ko léegi ma ne ko ñu fas nañu lëkkali lëkkaloo ñëw yéen. fas nañ yéen incha allahu liggéey bi ñu bokk yéen. yàlla ñu yàlla wërsëgal nag ñu mën ko bokk yéen. wërsëgal ñu ngëm guñ ko mën a téye foofa. leen fa ngeen ngeen sama xel day dal na ci de incha allahu diine moom soobee yàlla bëgg bëgg ci réew mi tôt ou tard ndaw ji ma gis yàlla ma jaar li moom jërëjëf jërëjëf rek allahu fi naan ayyadakum allahu wa nasara amin amin ورفع درجاتكم في أعلى عليين اللهم حققهم النجاح والتوفيق والسداد والرشاد واجعلنا جميع المسلمين حقا لا مبدلين ولا مبدلين برحمتك يا اللهم اجعلنا من ورثة الرسل بصلوات ووفقنا لحمل هذه الرسالة اللهم وفقنا لحمل آمين

sëriñ bi macha allah ñu ngi ziar. vraiment est-ce que da nga a jox damay envoyé sa vidéo. Facebook rek. Facebook live la WhatsApp yi rek la may envoyé. say say vidéo. dëgg temps yi gisuma ku ko xëy si may. sant yàlla rek sant leeru lislaam sax alhamdulilah yàlla na ko yàlla moo gëm mais am dafa am Europe Europe daa am benn famille bu fa nekk boo xam ne ay xale yu ndaw ñi nga am deux ans trois ans di jàng wax deux ans trois ans di jàng wax si internet bi lañ jëlee sama numéro chaque jour dañ may envoyé whatsapp xale yu ndaw ne papi sunu maam la ñuy ñaanal yàlla bàyyi ko chaque jour dañ may envoyé message audio chaque jour chaque jour chaque jour chaque jour waaw. alhamdulilah léegi xam naa yooye boo leen lancé le message su ma ya. alhamdulilah su ma ya Mariam. Mhm. yal na suñ borom bi subhaanahu wa taala sàmm leen. jërëjëf amiin amiin ba loolu ñu teel a jëmbat ci ñoom. bu mhm. dem ba mat ci ñoom meññ ci biir Europe yëpp. Mhm. amiin amiin suñ borom man na ko yomb na ko yal na ko yàlla def. amiin amiin amiin. sëñ Abdul Karim si la yàlla. amiin imam di bokk ñun ñëpp barke Seydina Mohamed incha allah jërëjëf ma ñu bàyyi nga noppal ñu bàyyi ko mu noppal kon ngeen ko gisee imam Iba Ndaw dañ fekk si oto bi macha allah ko ak euh, suba euh, suba imam day imam dafay ñëw euh, si siège mouvement nitu dëgg ñu ngi ñëpp ñu ñëw fekk si siège mouvement nitu dëgg bi incha allahu rabi imam dafa ñëw suba incha allahu ñun fa la ñuy añee nag ak moom ñun ñëpp donc ñu ngi invité ñëpp média beeg ñëpp ñu ñëw ak maam Alioune Badara Ndao fële ci siège incha allah siège nit dëkk bi ñun bëggee bu baax a baax di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen jàmm yàlla saxal dëgg Sénégal saxal diine Sénégal sutura ñu borom di yàlla rafetal taxaw yi te bañ naa ko itam ci xeet dëgg dañuy def hold on. bëgg ñu

fatali wat nitu deug yi dañ wax ni suba imam ali Badara ndaw day ñëw ci siège nitu deug bi di inviter média bi yépp daf ñuy seet ci inshallah wa nitu deug yépp nañ ko paré préparer suba inshallah fa lañuy agné ñun ñëpp inshallah allah rabi ñu ngi invité ñëpp vraiment ñoo teew ci am question bu boobu poser imam imam dañuy dal inshallah allah rabi ñun ñëpp day ñëw ci siège nitu deug bi suba inshallah allah waaw. Selamun Aleyküm. Sonra deyin sana yine Selamun Aleyküm. É Selam ziyaret var. Maşallah. Selam. Thank you. Sağ olun. Aleyküm selam. İyiyiz ya. İnşallah. amul lu gën Rodrigo Barba. teel a nax. média bi yéesu. média bi FM àddina bi média moo ko yore. Mm-hmm. moo tax nga daal seen liggéey tappale yu bëri ah ñoom ñii nañ. Hmm? préparé seen contre attaque liggéey nañ ci lu bëri jëm itam. non média bi média moom la ñu nekk ak ci àddina bi di am ci bopp daal la mu mën. alhamdulilah rabbil alamin. waaw. non kenn ñi mu woon naan. <laughs> non information yi noo ko doon mais nag rajo buñ ci xam ne yéen a ciy wax ba ma ubbi pour déglu dañu brouillé fréquence waaw yor foofu benn kii boo xam ne benn appareil bu boo xam ne buñ ko laalee jël dootoo dégg kaso dootoo dégg téléphone réseau bi day dañ lépp day dañ bàyyi nag ba déglu ba ci digg bi ñu dagg ko non li am nañ sant sant yàlla Hôtel étoiles, hôtel 4 étoiles. maa fa nekk. 5 étoiles. teral moom. ku ko bëgg roxal da ngay sonn rek. dii di ñaan oustaz dama dama leen a yërëm ndeysaan ndax xam naa ne mbir mi diis na ci ñoom eh, façon diis ak diisaay boo xam ne. loo ah, ci mën a xool kenn. ñii ñi affaire xaalis bi moo leen njëkk daaneel moo leen ba ñu dee. <laughs> xaalis bi. allahu akbar man xaalis dama cee jooyoo jooyoo jooyoo parce que loolu xel mënu koo xalaat. xamuñu ma yàlla nit yàlla rek la mën. ñoom mën nañu fa jàpp pour gis xaalis pour takkal imaam ñuy dëgg xaalis bi gis nga xaalis boobu bu ñu ko gisoo mënuñ ko ca tax lu leen neex. dafa doy waar man loolu man xaalis boobu dafa doy waar ah. toog mu ñëw rek fexe bu ko jox ma xaalis. dañ doon tuur saaku ceeb yi pour fexe xaalis bi ñëw. faaw ñu taqal maam gis xaalis taqal ko yàlla ko yàlla taqalu noo koy taqalee. ba pare ma ne ma ne Moustapha su fan lañ lay setal. yàlla na mën a setal. voilà Moustapha ma na mën a setal. su ko jëloon tey jii. Ah. dara dara dara dara dara loo xamante ne sant yàlla rek bu fekk ne yàlla programme na ay mbirum bu teg ko yàlla ni mu doxalee mbir mi yàlla yéen sant yàlla yéen mbir mi jullit yi war nañoo jàng ko ñëpp xoolaat bëgg na seen bopp waaw jamono ñu toll nii leçon li nga war a tiire ci mbir mi le combat continue li nga waxee dëgg la dëgg la dëgg la mais Saliou Ndiaye na Saliou Ndiaye mos ngeen a Sénégal mbokku juróomi am ko sax. waaw waaw waaw ñoom ñëwee ma ne ko bu dee. xale wuñ mel boobu de Saliou dañ ne ñoom financement terrorisme ñaari junni yi mu jox Abdourahim Baro Abdou Baro loolu lañ ko jàppe ñaari junni. ñaari tam ñoom may may ne day tukki may ko diib loolu lañ téye kaso. te nee na sax dina jox ko dix mais loolu non non mbir mi dafa ma gars yi dama def il fallait il fallait que ñu am ñu tax a ñu jàpp ñu teg ñu ci incha allah man mooy mooy mooy xale sax suñu wax dëgg yàlla. voilà yow war naa ko toppee tànk imam génn lépp incha allah dégg nga tam après tamit. chef bi man de sama batterie baa ngi wàcc sax. salaamaaleykum. sëñ. gisee imaam bi dara ñaan ko si di ko ziar parce que dafa ne day Dakar trois quatre jours balaa muy dellu daara ja recevoir ñi nga xamante ni ñoo ko xeexal ko jàppale ak ñi nga xam ne ñu fa lañ añee ñu invité média yi ci la ci boo xam ne mën ko def ne kii saytaanal du nit. man dañuy sant yàlla. alhamdulilah walaay ndeysaan. gis nga ko mbirum iblis la mbirum saytaan la moom la moo turam di ko jox ñeneen. la waaw. moom moo def loolu yàlla ma fekkoon moo fi nekk ba tey. moo fi nekk ba tey. moo fi nekk ba lépp. waaw. Mm-hmm. c'est une mission. exécuté au niveau de, la prison niveau, national, international. yàgg yëngu yàgg yëngu yoo xam ne yàgg na yàgg yoo xam ne yàlla am na ko liggéey liggéey liggéey xam naa ko ba mu am état mu toog foog ñu ne muy jaar alhamdulilah dama lay liggéey ndax yéene am na loo xam ne liggéey mënu faa ko mais yéene waa gën a waaw dafa mel ni son yi la bëggoon yàlla bëggoon jàll. waaw kese son moom. te bu ñu demee ba koy teg ci ay émission rab kay xam nga ni émission musique ñu teg ay waarada imam kon ngay jeexal dama ko déglu ba bi mu tegee benn portion bu tuuti ci benn conférence ma defoon ci homosexualité hmm. yàlla xam na ne bi ma bi mu tegee affaire bi ak ni mu. amee mmh. coïncidence mmh, mmh, dama ñu rëpp ci lal bi waaw ñaan ñaan dama keroog laa ne sama dugg demoon fii fii fii ëpp na macha allah ndax sama xel dal na ndaw ay ndaw bi ci biir yoo xam ne yëpp ñooñu gën a yow ñu mag macha allah man laay wax dama ko nëbbu dama naan ndaw ñi ñu ëpp détermination. <laughs> ndax ci biir ah, am na solo lool ma taxaw leen la de. kan moom wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla yàlla yàlla fay la ñu dëgëral la bokkuñu ñëpp bokkuñu ñëpp di aar na lool kon c'est macha allah dëgg la te il faut nit ñi il faut que jullit a organiser bopp organisation lañ war nga mbir mi. nekkul ay wax yu bari ay organisation toog xalaat di nas ñoom dañ tëdd dañ tëdd seen néeg di nas di tene di nas comme ñoom moo ko nas boo nasul comme ñoom doo dem dañuy toog di nas di xalaat xam ne élément sàngam c'est dangereux pour seen programme ndax influence ñoom dañuy toog di nas di xalaat am ay nit ñu xalaat ba xalaat bu xóot xam ne diw sàngam li muy véhiculer c'est dangereux pour seen programme mhm. boo fi boo fi teg loxo bu dem ñu bëri xamuñ loolu mooy problème bi te nit ñi nag jullit yi war jullit yi war nañ xoolaat seen bopp toog réfléchir bàyyi seen différence ci ba dama gëm ne loolu nekk benn te moom ku naan laa ilaaha illallaah rasul war nañ toog déggoo la jàppalante te yàlla kese sax parce que li ñu li ñu boole moo gën a foofu li ñu wutee il faut ñu teggi suñu wutee te suñu suñu te gars yi dañoo utiliser loolu ba tàqali ñu am ñu taxaw naan kii dafa contre suñu ji dafa fexe ba tàqali nit ñi nag sëriñ boo toog boo soog def yàq nopp dem sëriñ dem yàq nopp sëriñ bi te finalement ñi mu naan tudd tudd mbir bi te loolu c'est très grave non li li li fi nekk dafa dafa dafa dafa doy waar non moo am fii non da leen a yàq da leen a kii loolu nag c'est que ñoom dañu bëggoon ne sa sa taqal imam ne dafay xeex mag ñi imam bi mu taxawee ci baar bi nag loolu leer nañu ne kii sax doon boole ñëpp na faf sax. waaw a jaaxal. doon boole ñëpp sax na. ba pare nag dafa am ba pare li gën a leer projet bi imam wax. ni programme la mu tëggoon pour développement wu Sénégal côté sécurité. état du Sénégal dafa sàcc mooy ASP yi. moom lañ sàcc de mooy ASP yi. xam nga bind ñoom nañ ko bind ci turu Ligue des imams moom moo ko bindoon ñu jox ko ko ki pour ñu xool ñu dooree ko Kaolack après ñu xool ni ko tasee régional départemental mais dañ ko ñoom moom lañ sàcc ah.

keroog bi bi ma la gisee tribunal ak ni ma la xamee ak ni ma xamee xale yi ngeen leen liggéey da nga gën a joxalu góor a góor a moom comprendre bi barakallahu taala tey itam démb am na ku ñu àndal moom ñu dem ci biir loolu nag ci suba ba léegi maa ngi am yéene pour jokkaloo ak yéen may naa ci bu baax may naa bu ngeen demee da ngeen waxtaan ak imam ñi seetaan dañuy inquiété wu di laaj ndax yaa ngi sa wér gi yaram est ce que mën ngeen wax ñaari baat rek yaa ngi yaa ngi yaa si a a baax man wax nga dëgg état yàlla wér la waaw waaye gis ngeen buusu garab bi gis ngeen buus la saag la wax ñu leen war a jàppale jërëjëf jërëjëf jërëjëf yàlla barkeel yàlla barkeel baraka daal fi naan sutura alhamdulilah waaw ñu àgg ci bis bi dañ doon ñaan yàlla daara ji jàpp ngeen bañ bañ pare incha allah salaamaaleykum ki mooy Sabali gars yi Sabali Sabali eh, sa at mi ngi lay seetaan euh, tey dañu ñëw fii teeru bi teel a ci poos dafa ñëw teeru bi seet si imam seet si imam teral imam itam lan lan moo Sabali ñoo seet jigéen ñaa ngi jooy ñëpp ngi tax fii ku nekk di inquiété ci imam Sabali lan mooy sama discours mooy euh, islam Sénégal moom islam ku wax Sénégal la 30 mm-hmm. te jëf ñàkk moo ko tax yëpp mais Sénégalais yi gën nañ ko dix ans moo tax dinga bu ñuy dinga quatre-vingt-dix-sept pour cent yi vraiment jàpp naa ne lu am la ci xol yi mhm. quatre-vingt-dix pour cent waaye nag maanaam jëf mu am rek yi ñàkk xam-xam war a wane na ko rek ñun génn bi dañoo xoole mel génn ñu woon def mais ñu génn romb mu ci jaan ñëpp ñu génn ñëpp ñu si combat ñu gën a <laughs> yéen ñëpp macha allah parce que jamono yi nga xam ne ñun suñu sécurité bu ñu waxee rek <laughs> ñu si kase rek nit dëgg mooy ñëw taxaw yàlla nekk suñu kanam ndeysaan mais ñu ñëwaat dëgg la nag imaam yar si yàlla teggi dëgg la moo tax ñuy laaxatu xamul média xamul tribunal mm-hmm. ñun tribunal ñu ngi koy doog a dem ndongo yi ñu xam tribunal police dañ koy romb rek ñun ut këy rek moo dafa rek war a def génn na si mooy ñenn ñu xam naam dëggal ah loolu dëgg comme euh, euh, ñu ñi nga xam ne xam ne imaam ba bàyyi ba ñu waxee ñun loolu du dëgg ñaareelu kabari bi si génn ba xew-xew bi amee mooy ñu nga xam nañu imaam waa ñuy sikki saak non temps war na ko mën am def de ñooñu vraiment pour ma ñàkk information moo tax seen seen gëm ko dëgërul imaam nag wax na ñooñu vraiment loolu wax mu ne jéggal na ñëpp ñëpp ñëpp que bi mu waxee keroog ne bi mu waxee mu ne jéggal na ñëpp mhm. dafa daf leen yërëm sax day ñaan Sénégal daf leen yërëm sax mais bi mu wax la sama xel dafa dem ci Serigne Touba bi mu jógee ci tubaab bi li mu wax. ñëw Serigne dafa ne. Uh-huh. lépp lu ko tubaab bi def jégal na ko. Uh-huh. Uh-huh. tubaab yeeg ñi xam ak ñi ñëpp jégal nañ la ñëpp la ñaanal. imaam même pare même moo yi la wax même chose. même moo la loolu ñëpp ñu ngi ko doonee mooy euh, Cheikh Ahmadou Bamba euh, mooy xaadim mooy liggéeykatu. sallallahu alayhi wa sallam day jël ci maanaam ci ci kii am de. ci patron lay mm-hmm. jëlee lu muy def loolu. Mm-hmm. moo tax moom vraiment wax yooyu ñoom ñëpp ñu ngi ko doon ko sallallahu alayhi wa sallam dëgg la ko ba bu naxatee màkka mhm. maanaam gum génn foofu mhm. ba muy gàddaay boo xoolee moom catu pied yi la dem dox cinq kilomètres mhm. sa catu tànk yi nii waxuma la tànk buñu teg de catu tànk la dem doxee cinq kilomètres lu tax mu ko dem def pour ñu mën a ràññee tracé fu muy jaar pour mun ko ràññee fa jaar wala déet buñ paree maanaam xar yi ñoo jaar gàtt yi foofu ñu tracé fa tracé fa ci gàddaay lu ne ne ne ba dugg ci xunt bi ak Aboubacar anam bu noonu sa euh, nekk ci seefeet bu soxla Aboubacar moom ko parce que xam nga président bu ñu ne làqatu woon maanaam dafa nekkoon xomtu bu nga xam ne da ngay yéeg benn dojo te doo a dugg ko ci ngoom ko mu yéeg nga dugal mu dem bay dugg ne ko déedéet doo dugg xont ne lu du maa fi dugg ne dafay loolu mu lor ma ne ko continuer mu dugg foofu noonu fekk fa ñett kàmb ñett mu koy fàttee mu jël tànkam tax tax xattu ko fii te ka bu mu fa teg tànkam fa la jaan ba nekk mu ne ko bii ne fa kasam ko mu fa yax su mu set mu ne ko uddu ko yeneen bi salaa salaam duggal dugg am duggoo ci la wéeru ci dënn yeneen di Abu Bakar Sadiq xam la moo wéeru seen mooy xar xaram ba sell moom noonu la def day sant mbaax yàlla subhanahu wa taala dafa té wala si dënn rek melaw yeneen ko xool situation bi ne waaye kii yàlla yónni muy sonnee nii bay daw ci. waaw ñu koy tinkom muy dugg di di ba coon sonn ba tëdd sax mënul wax sa rek noonu la gémmet ne la euh, te saa mu jooy avant muy jooy nag fekk na wax bu mu tegoon jànn yàlla nattuwaat xanaa du yàlla yéen a la yónni kii dafa am protégé wu leen. xoolal nattu bu ma def. wax ñëw yabal jaam ne ko mattal ma Abubakar jaam bi mattal Abubakar Abubakar ci yëg-yëg bu mu yëg dangar bi di muy ñett ñett. beneen dem muy jooy si jaan maa ngi ko màtt te ñemewul génnee foofu tànk bi mu ne ko màtt ba sonn waaye man yéen rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon xam nga ñu lu tax moom mëtu woon ñu ne ngir a yëngal yàq mu yëngate léegi rongo yim nañ jooy moo toog ko ci yénente bi sallallahu alayhi ne ko lan mu ne ko lu def mu ne jaan moom jaan màtt na jaan moom màtt sallallahu alayhi wasallam yow noo gisee ñaar ñoo ñi nga xam ne yàlla moom moo nekk seen ci jafe ma ci xat-xat bi ci kasaw yi nga xam ne guddi nañ fa nekk. jaan màtt leen ko. yeneen bi sallallahu alayhi wa yëkkati kàddu ma xam ne dara lu la ne lu ci digal yàlla. te yàlla du nekk situation bi mu jël si maanaam ci dagal fu mu ko mën mu tuufli ko ne ko maa ngi leen di ñaan dara du la jàpp. te loolu dagar bi loolu ci ñuy fàttali nag xat-xat yi nga xam ne moom Aliou Badara Ndao nekkoon na ko ci kasam mm-hmm. ñu wax ne ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy torturer xoolal mm-hmm. jaan ba ah xanaa da nga ne kii du imaam bu dëgg léegi imaam bu dëgg li nga xam ne mooy ku nga xam ne intouchable dëgg la intouchable mais il faut nga am benn étape booy jaar dëgg la jaar jaar boobu ak yàlla soo jaaroo ci kaso bi ñu ne waa xanaa moom dëggul imaam yi bëri na damay dégg question boobu ñu ne question boobu banal la imaam yi bëri na fi lu tax ñu wax ba kaw la jàll loolu la imaam yi Dakar yëpp dem gis naa yow la koy laaj sa kër yi chaque jour ñu laaj waaw waaw tontu dëgg nag leen la dëgg mm-hmm. mooy imaam moom lu muy def parce que yéen a def nañ ko benn dañ ko lijjanti mhm. dinañ gis abal effort muy def loolu nag muy def nag mu ñu yóbbee dañ dem jeex ko jeex ko ba fekk ko ca kaw la mhm. gënu jàmbaar bi xam ne gën dem daneen système bu muy xee pour am moo arrangé wu lu mhm. ko jàppoon moo arrangé daaw bi dëgg-dëgg li kaw la wax ni ko yàlla subhanahu wa taala bul modifié ndaxte yàlla ëppoo ko xigma ëppoo ko yar ëppoo ko mën naan sagesse bu ñu mën a transmettre ay message dala ko jox jox yeneen boo ko doxalee koy unité yi nekkoon ci loolu kon nag ñu ngi yoo sagesse boobu nag mooy defe naa jorom ma koy jàng nañ ko ci projet bi ñëpp jàng nañ si projet ko amee naka laay transmettre si keneen fekk jaar si du jóg dara du jóg defe naa Karim léegi moo la mooy jaar si du jóg pousse du jóg pont du jóg kenn kon nag la ban jaasi nga jóg mooy jaasi làmmiñ mooy jóg di baraate ci ay idéologie nga waaw jaasi làmmiñ yooyu ne den dem moo tax te chaque fois day am loo jaay silam yi nga xam ne day dorojal pour nga xam ne doo mën a dox pour mën a euh, wax maanaam euh, njub te loolee dafa nekk ci ay départ d'urgence yéen fooy tibbee mooy taataan yow waroo ci loolu ndax yaa ngi nga xam ne la wax nga comme boo jee matal ñu ne lii original la doo ko doo laam-laame sax di comparé bëri wax wu yàlla subhanahu wa taala wax mu la original sax parce que wax bu ñu original mooy lu sos yàlla moo bind kuy sos sax kon nag kooku mooy suñu borom léegi yoon bi na imam Adi Ba doon nekkoon du yoon bu bees comme nu mu ko leeral si euh, ci tribunal même quarante-huit na Abdallah ibn Yaasin ci lay sampoon l'islam fii kon mën na gis état islamique jiitu na ñëw fii six siècle mille quarante-huit imam wax na ko tribunal wax na ko tribunal mille six cent vingt-six mu ne fam almaam yi almaam yi waaw six six cent vingt-six ci la tubaab bi dugg dugg mhm. waaw waaw kon Abdallah ibn Yaasin kii ko woon mooy euh, euh, abdullahi ibnu ibrahim moo ko mhm. woon ca kayrawaan abdullahi mhm. ñees jógoon ca kayrawaan ñu daje woon fekk ñoo naam ca ca terminal ca dañ sewal ni ñu daw daw si làkku ndar ci mhm. la ndar sosu nag lu ko njëkk a sos kon ndar bi lu ko sos ah, kon musée boobu ko war a seetaat de ko foofu noonu wala daara njëkk a sosoo Sénégal wasaare diine wasaare diine di fukki at fukki at yooyu ci la diine wasaaroo ci Sénégal ci loolu lañ nekk si 1948 le 1646 ci lañ nak daara wopé nga xol 1600 ça fait 2 ans déjà mu nek 6 siècles mhm. mais 600 ans là do ya nga dégg 600 ans islam mi ngi sénégal 600 ans manam 1048 la ñëw la ñëw la ñëw wa l'islam ñëw mhm. ñu tok 600 ans démocratie dogo dugg ci fi démocratie dogo ñëw dogo démocratie kon l'islam nu magay démocratie du 600 ans dañ toog dugg lakk kii yi tubaab bi dugg dugg ci buntu ndar loolu dañu imam xamle woon ci procès bi 1646 mhm. ci lañ lakk lakk kii ban daara lañ lakk daara bu formé Cheikh Ahmadou Bamba Rasoul di nga xam ne ñu tudd islam fii nii boo ko tuddul si di nga jumde boo ko tudd booy tudd l'islam ba tuddoo Cheikh Ahmadou Bamba da nga xeeb sa bopp waxoo Serigne Touba waxoo Serigne Touba mhm. da nga xeeb sa bopp mhm. kon yëkkati sa bopp mooy wax l'islam Sénégal te dugaloo si Cheikh Ahmadou Bamba lu tax nga xeeb sa bopp moo tax liggéey bu rëy bu mu rëy liggéey l'islam liggéey boobu dees ko neenal te tey am na identité bu nga xam ne yóbbu ne ko sax. responsabilité responsabilité. Mhm. mais malheureusement ndeysaan ñu koy woote woo bokk ci kër gi wane wuñ maanaam. comprendre te moom tamit moom setal na boppam moom. seen bind bind lu leneen la yow. bind mooy maa ngi fi bàyyi sama trace leen modifié sama yoon. Mhm. mu ngi nii nii laa fi nekkee woon. waaw toxal muy soppeeku. du soppeeku bind mhm. wax rek yéen ma di ko toxal. jëlul voie transmission boobu ci ay fan. dafa def voie de transmission boobu par bàyyiwoon ak technique quoi mu ne day nekk ba nga xam ne bind ko xam ne moo jënd ko loolu tamit ñu ngi sant maanaam suñu mag yi mag yooyu nga xam ne mag yu baax ndax moo na mag yu bon tamit quoi waaw mhm. mag di am yu bon ak yu baax donc mhm. moo tax ñu tuddee salafu saalih mhm. mag yi woy daw yu baax yi kon nag vraiment ñun euh, ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala histoire retenue la tey kontaan naa si observateur wax na ko sax benn observateur gis naa liir naa fa ñu bind histoire tey dugg na si histoire bi nga xam ne histoire du Thiendra dañ ko def Thiendra dañ ko bind kaara dañuy waxate l'islam fii nii imam Aliou Badara Ndao bokk na ci soir Sénégal ah, kon kon ko sa dëkk bokk l'islam yaa ngi leen jaloore te noonu doo ko tànn wallaay wallaay foog ko tànn ma ba am yeneen mooy kilifa nekk ñun fàtte nañu man xaw ma leen sax te yàgg ba ay mille neuf cent soixante damay toog ay paa ñu ne kooku am lu mu sëyee woon ma ne waaw ah man xaw ma ko de dama xamoon lu muy yaatu yëpp xaw ma xaw ma ko waaw ma ne kon ni mu fi nekk woon moo tax moom si mag yi bëri la moo tax kooku muy sabali maa ngi dëkk ay ñoom waaw mooy ndàgg waaw ah bu tàggoon ngeres boobu mooy xawoon da nga moo waaw billaay moo tax vraiment ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala yoonu njub mooy dëgg vraiment tey gis nañ antul moom juddoo programme bii la yàlla subhanahu wa taala yéen sant yàlla subhanahu wa taala suñu tubaab ba mu jotee ñibbisi ñibbisi ci la victoire dugg victoire si la samp ba tey nag te nag defe naa imam Aliou Bara Ndao bi samp na tey bilaay bilaay te defe naa ci nitu dëgg lay commencé wane alhamdulilah jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu ngi kontaan su baax kontaan naa trop mais wax la gars yi suba imam day ñëw kii nitu dëgg nitu dëgg nag vraiment ñu loolu euh, du sàkkoteef Karim mu fi taxaw dama koy leeral uh-huh. dama koy leeral de uh-huh. Karim mu ngi man maa o oo sànq parce que imam daf ñu sonal wala ma karim dëgg la dëgg la benn ñaareel ba tamit wala ma karim mooy nitu dëgg mhm. parce que démb nañu fa doon jaar far yàlla def sax ñu fañ demoon ba xaw guddee mhm. mais dañuy wane muy muy insisté bu baax waaw nitu dëgg ñoom fan nañ nekk fii mhm. pour moom benn société ngeen yor fan dëgg la dëgg la waaw fan nañ nekk fii foofu moom moom ëpp nañu yibbi bañ fa waaw mais te Karim moom sàkkoo ko tey vraiment boobu nee na moom dana def déplacement suba di dem seeti incha allah suba foofu la ñuy nitu dëgg nitu caaxaan mu fa ñëw de ok incha allah kii ñun ñëpp ñu ngi fay incha allah kii jeex waaw. taxaw vraiment yéen tamit ñu leen dem euh, découragé si si maanaam euh, ci combat bi ñun ñëpp yëgal leen vraiment combat baa ngi nii. mi ngi soog a commencé combat mi ngi soog a commencé. ñu tudd ñu ngi nii tey ak yeneen say imam. Mm-hmm. xeex nañ ba tey mu jëlee ko ci prison ci doole yàlla subhanahu wa taala tey mu ngi sax ñëw di leen wax kenn loolu dañuy ngeen bu leen ko tuutal waaye parce que ñëwoon nañ leen tël rëy la yàlla sontaan dëgg la bu ko xeeb nag vraiment bi neex ma jërëjëf naam seen xéwal borom dee koy nettali nettali moom mooy dee koy sibal di ko sibal di ko sibal nettali am na ñaari façon nga xam ne ngay wane sa sa bég mbégte di ko wane par des actes mhm. ne ah gis nga maa mbég naa de ñu ne manifestation ñu ne ñu mbégte nañu woon dañuy exprimer lu nekk seen xol mhm. expression boobu nañ bëgg nag am naa dégg ngeen seen xol seen xol soo ngeen ne ko baax kon képp kuy dëgg kuy defar dëgg kooku moom nit la tam suba ñu ngi lay xaar foofu jinne de jinne dëgg <laughs> kooku mooy sabali jërëjëf sabali jërëjëf jazaakumullaahu xayran waaw message bi leer na nañ ko koy sabali macha allah ñu ngi koy waaw ah baax na macha allah yi jàng ñu lu bëri macha allah asalaamaaleykum asalaamaaleykum salaamaaleykum yéen salaamaaleykum soxna si ñu ngi si na ngeen def salaamaaleykum naka yitee macha allah soxna si na ngeen ñuy waaw dañuy dim jàpp ñu rek ñu ñu xam ñu lay seetaan na ñu leen rek xam nga waaw parce que àdduna bi yëpp xam nga combat bi dama ko ma ne imam Alioune Badara Ndao xamuñu li ma doon xam nañ bi waaw ma ne ñoom jàppuñ ko ñii jàppuñ ko imam bi tubaab yoo ko jàpp tubaab yi ñoo noot ñii ba pare ne leen jàpp leen imam bi parce que bëggoon nañu orchestré loo xam ne moo tax Sénégal jërëjëf ñu lii ñu def nii lii ngay gis nii xeex bi moo ko xeex moo tax tey dama la gis nga yegg si di jooy ma gis nga sujjóot ma nañ xaw a sàcc jël film sax ban sentiment nga am bi nga gisee imam soxna si nga présenté wu rek ah tur bi naka la madame Mbacke macha allah ñu ngi lay ziar soxna si madame Mbacke ñu ngi lay bu baax a baax ma wax sëñ bi sama kelas moom man nañ leen a man nañu dem hôpital xol ndax tamit digënté 3 ans yi amul feebar wala dëgg la allah macha allah sant yàlla bu baax baax sant yow soxna sa njëriñ mbàkki nga waaw bi nag moom combat bi yëpp dañ koy gis combat kaw ba tout temps bi na ci trop trop trop wax dëgg yàlla allah te xam ni diine rek moo tax mu ko doon def alhamdulilah ndax dañ xam imam dañ xam ndax jëflanteeg moom xam ko. dëgg la. même bu ko sax te dégg ko war nga am moom njort. dëgg la dëgg la dëgg la sama ku ko xam. waaw xam naa sant yàlla. jërëjëf ñëpp amul léegi ndam la daal lii daal ndam la. ndamul la ndamul islam la ndamul alquran ndax lu bari lu lëndëmoon dina leer dëgg la ndax buñ defee ne dañ koo jàppoon lu benn nit ku tumuraanke ku amutu bopp mhm. waaye dafa fekk ne ñiñ ko seqal dañoo amub yar kon lii war na leen a jàngal ne duñ ay nit bu duñ ay nit ay ndax metti woon nañu ba fu nit yem mhm. loo xam ne metti am na ñoo xam ne seen métit àggul fii te ñu ngi daali kono di def lu ne ñun siñ métit ëppoon na taal noog taalibe ak dañ ko doon delloo ci yàlla moo tax lii moom nañ santaat yàlla xam ne lépp yàlla la yàlla ci wone kàttanam mhm. Mhm. jërëjëf jërëjëf soxna si ma bàyyi la nga présenté yow <laughs> bari xanaa nga wax ak waa àdduna bi yëpp ñu lay seetaan ni télé ci poste. asalaamaaleykum waaw Abdou Karim xanaa mhm. di

sant bu toll ne lu mu bind ci ay pepp suuf sant bu toll ne lu mu bind ci ay middaafam sa suñu maam aadama ba keroog àdduna di tukki sant bu toll ne lu yàlla bind ci ay malaaka sant boo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amoo fu mu yem ñoo ngi sant borom bi bu baax baax alhamdulilah alhamdulilah nixmat ak musa alhamdulilah dañ sant ndax yàlla moom moo yootoon teg imaam natt moom moo yokkaat teggil ko du kenn nag mais yàlla ak mbaaxam moom moo jaarale woon imaam si épreuve bii am lu mu la moon ci moom am mission bu mu bëggoon imaam doxi ko ndax xaj na mission woom ca daara ja dafa am foo xam te amoon na fu mu yem mu bëggoon koo gën a yaatal ndax li may wax sànq imaam rek une expérience n'est jamais négative il faut en tirer les les leçons et les dire que imam tey jii sur le plan national ñu bëri xamul ko tey imam ku ko xamul woon suuf lu territoire national muy a xam tey jii kan mooy xam nañ ko et il est connu sur le plan international macha allah xam nañ te tey jii bu bu buñ ko setalee nii setal ko wecc dafa nekk loo xamante ne nii man waxoon naa ko te journée teggitu ma neneen suñu combat yëpp na nekk taxawal procès bi parce que bu ñu defee procès bi def ko yoon dire le droit dañuy libérer imam parce que il n'a rien fait te ils n'ont aucun élément de preuve contre mhm. comme nag amuñu benn élément de preuve mhm. kon bu ñu bu ñu bu ñu ko attee dañ koy daal di bàyyi loolu ñu siy sant borom bi subhaanahu wa di wax ne nag Euh, dañ ko doon ñaanal ñaan yoo xam ne xaj na sama borom moo nangu suñu ñaan yi ñaan yoo xam ne dañ ko doon tibbee ci suñu ay xol mhm. di ko julli di ko si jootal ay guddi di ko ñaanal guddi di ko ñaanal bëccëg mhm. di wax ne borom bi subhanahu wa taala na ngay na nga xettalee woon yonent yàlla yuusufa yàlla na nga ko xettalee imaam daw na nga woon yonent yàlla yunus te jën wa yàlla na nga ko xettalee imaam daw na xettalee woon yonent yàlla ibrahim te safara ba yàlla na nga ko xettale imaam daw na xettale woon sa yonent gaa yu baax yi ba nga leen tegee natt bi mm-hmm. yàlla na nga ko oyofal ci moom oyofal ko ci njabootam tey nga yëkkati ko ci ay darajaat yu gën a kaw yàlla na ko sama borom def lépp nekk ay yëkkati fi dunyaa wal ñu daal kontaan nañ sant borom bi wóor a a wóor a wóor di sant nag ñi ci taxaw ñëpp ci xeex ni ñu mel ne Ligue des imams mhm. ñu mel ne yéen ñi waa nitu mhm. ñu mel ne association mhm. islamique yëpp waaye ay maître coranique yi ñëpp daal mbokk yeeg tarixa yeeg ñëpp ñi ci jàpp daal wax dëgg yàlla ñuy sant ñëpp di leen di maa ngi wax nag ci di leen sant di leen gërëm dëgg yàlla jërëjëf sama si kontaan bu baax rafet na yàlla yàlla fay gis ngeen waaw waaw macha allah ñoo gis ngeen de man moom ñu ngi tàmbalee tegu ci poche moom ba léegi. Mhm. daara ji da koy fetal kooku dañ koy waajal ñun ñëpp incha allah ñu pare le 8 septembre moom fa la wàccee foofu la daaw la wàccee daaw la pare incha allah incha loolu mooy njëriñu daara ji dëgg la jërëjëf salaamaaleykum jërëjëf macha allah Mbacke ñu ngi ziar. ma allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf macha allah amoo de daanaka xam naa lu ma waroon. da rek bu ma wax lépp xanaa soxna wax na ko. su matee moom daanaka soo si doolee damay ragal mu. waaw yow la euh, ah. euh, nekkoon naa ci daara yi Oustaz Aliou Ndao. dëgg la kaw la nekkoon naa fa def naa def ñaari at toll ci ñaari at. <laughs> waaw waaye wax dëgg euh, natt bu fi jaaroon bala mu laa metti dëgg-dëgg nga xam ko mooy oustaz nga xam ko dëgg-dëgg nag laa ma nga dégg ko nii walla nga gis ko nii waaye nga xam ko waaye rawatina nga dëkkam moom nga dëkkam moom man boo xamante dëkk naa dëkkoon naa ak moom man xam naa ko mooy oustaz moo tax daanaka fi mu toll nii sax wax ji mënuma cee sori daal mënuma cee sori daal waaw parce que des na daal des waaye ala kulli xaal ni sant yàlla rek sant yàlla rek waaw xam euh, natt la woon bu fi jaaroon yàlla suñu borom subhanahu wa moom moo ko dogal léegi nag euh, dafa am lu mu si jublu euh, am xëy pour nit ñi gën a xam imaam gën koo xam ku ci topp itam yëkkati ay dara jaam yëkkati ay ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa daal natt boobu mu jigee bi may génn ci ndax bi mu set wicc rek cayee bàkkaar set wicc cayee bàkkaar yàlla suñu borom euh, euh, nekk ci ay ba faw xéewal mu dunia wal axira waaw jërëjëf jërëjëf yi rafet na macha allah macha allah waaw kon euh, man ni ma la ko waxee rek ne leen ñu ngi woon fii ci hôtel Théodore bi si imam Alioune Badara Ndao Euh, di wax nag euh, ñi nga xam ñi ñi ngi ci si euh, kii yëpp macha imam bi incha allah day set suba mouvement nitu dëgg ñu waajal ñu suba incha allah suba ñun imam bi ñooy añandoo fële ci siège dëgg bi donc ñu ngi ñu ñëw waxtaan yaakaar naa ni képp xamante ni vraiment imam Mbacke Mbacke mais ñu doon gis boobu ak bi commencé ba léegi allah yàlla dëgër ci. seen seen waay rafet na. dëgg la dëgg la seen waay jëf yàlla yàlla barkeel lépp. amiin wala allah yàlla yàlla barkeel waay. man seen bi kuy waay yàlla ci suñu borom bëgg rek. jërë ngeen jëf jërëjëf daa am seen i war incha allah. incha allah incha allah maa bu ngeen ko gisee sëñ Jili moo ñëw macha allah la interview am leen boole ñi diine ñor yëpp gis na dañuy ñëw taxaw wane seen bopp ñoom ñoo doon noonu ñoo a problème rek waaye sabe